bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa xew-xew bu màgg bi nga xam ne moom lañ dëgmal te mooy màggal anhu digal mboolem taalibe yi jullit boo xam ne mbégam sa mbég la nga santale ko suñu borom subhanahu wa taala dafa doon loo xam ne buñ ko xoolee ci wàlluk li nga xam ne mooy defar diggante nit ki ak boroomam muy buum gi jokkale nit ki ak boroomam ak la koy dëgëral mooy li ñuy wax aljaanibu ruux yi muy wàllu spiritualité wàllu diine wàllu paspas day lu am solo ndax màggal li ci jiitu mooy ak sant yàlla la te buñ nee sant yàlla ay mbir a ngi ci ci biir yoo xam ne mbiru xol la mbiru xol la mbiru làmmiñ la mbiru ay cër la waaye ku ne sant yàlla mooy yëg nga amuk suñ boroom yëg nga nekkuk suñ boroom yëg nga mbaaxuk suñu borom te loolu yëg-yëg yi ëpp solo ci ab jullit la yëg ne suñu boroom ku fi nekk la suñu boroom kuy xéewale la suñu boroom xéewal gépp goo xam ne ah doomu aadama am na ko xéewal goo ko ci suñu boroom la jege kon la jiitu ci sant mooy yëg-yëg boobu seede boobu nga xam ne nit ki mi ngi koy seede moo taxoon sëriñ Tuubaa di wax ne wala tashkuru ni'mata bi shuhu bi shuhudi nang ci seede ne bi kaw ni ha minnata zil abidi mooy seede ngay seede ne lii kat xéewal la gu jóge may la gu jóge suñu borom subhaanahu wa taala kon màggal gi jaamu yàlla gu màgg la waaye liñ ciy defit lépp luy dëgëral diggante nit ki ak boroomam la luy defar xolum nit ki la ndax jaamu yàlla lañ ci def la ca jiitu mooy yàlla farataal ndax Sëriñ Tuubaa li waxoon ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan dama war lu sant suñ borom ci li mu farataal mooy jëf yu baax yépp nga xam ne ñàkk koo def nit ki da ci am bàkkaar waaye boo ko defee am ci tuyaaba waaye li mu sunnaal nga xam ne boo ko defee am ci tuyaaba waaye ak yu dagan yoo xam ne yu ko suñ borom tànnal la nawaytu shukrahu bi kulli ma abaax kon la ñuy def lépp ak jaamu yàlla lay doon ak yi nga xam ne moo xam yuñ farataal la moo xam yoo ne ay nawaafilul xayri la nga xam ne boo ko defee da nga ciy yokk aw yiw ndax dañ ci jàng alquran lu baree bari di ko ko waajale bu ñëwee ñu di ko ci def waaye di ci jàng ay xasida di ci tudd yàlla te ku ne xam ne tudd yàlla day defar xol day defar ruux day defar jikko ndax salaatu ala nabi bokk na ci yi nga xam ne day tarbiya ca ku ne xam ne ne màggal waxtu la woo xam ne dañ ciy jàng xasida yi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ku ne xam ne ne moom day tarbiya day defar ruux yuusilu xatti man ahaba lil ilah bi gayri xalwatin wa yakfi kulla la kon suñ borom sëñ bi nee na mbindam day yeggal yéegal nit ki suñ suñu borom subhanahu wa te li gën a bari màggal loolu ci liñ ci def la waaye màggal bokk na ci lañ ciy def mooy ziyaare siyaare barab yu baax siyaare nit ñu sell barab yu ñuy nangoo ñaan ak siyaare nit ñu baax ñoo xam ne boo leen ziyaaree la nga fay jële njariñ lay doon ci ay ndénkaan ak melokaan wu rafet woo xam ne mën nga koo roye ci ñoom waaye mu doon waxtu woo xam ne dañ ci bernde bernde ku ne xam ne itaamu taam muy joxe ñam li nga xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala digle la yonent bi wax ne ku koy def suñu borom da lay sopp kon day lu bari tuyaaba la te ku ne xam na ne bis boobu bisub bernde la bisub joxeñam la bisub teral ay gan la ndax ay gan fu ne la ñuy jóge te teral gan yonent bi sallallahu alayhi am na lu ci waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu koo xam ne gëm na yàlla gëm bis ci nay teral ganam kon loola dangay ngay dégg teral gan ku koy def day dëgëral sa gëm yàlla day seede sa gëm yàlla waaye day seede sa gëm bis penc ne suñ borom moomu nga xam ne loo def ëllëg dana la woo laaj la ko bu dee lu baax mu fay la ca bu dee safaan nga yooyu ca bugal bu la jéggalu kon loolee ca la bokk muy ziyaare yooyu ñuy def waaye ku ne xam na ne màggal ay bokki jullit dañ ciy daje muy silatul rahim te silatul rahim moom it yi gën a am solo la ci yi nga xam ne mënees na cee amee tuyaaba mënees na cee amee ngërëmul yàlla mënees na cee amee àjjana ca gis nañ ne màggal nit ki day màggal si waaye ci biir màggal gi ak jokk bokk ngi ci kon bu ñu xoolee jëf yi nga xam ne màggal gi dina ci xew jëf yépp boo ko tënkee day defar nit day yokk pas nit day gën a jegeel nit suñu borom subhanahu wa taala mu doon loo xam ne day defar diggante jullit ñi di gëna a indi ak gindit ko ci biir jullit ñi ndax fan yoo xam ne ay jullit dañuy daje ci yàlla rekk tax di waxtaane seen diine di soññeente di fàttaliku jàng njàngalem Sëriñ Tuubaa fàttaliku dunduk Sëriñ Tuubaa dunduk gaa yu baax yi mu àndaloon waaye di fàttaliku ak a nafaraat li leen seen diine sant loolu ku na xam ne man day defar day defar bu baax a baax nekkiinu jullit ñi seenu doxalin seenu gindikoo seenu xamante seenu dimbalante da ko da koy gën a dëgëral te gis nañ ne màggal waxtu la woo xam ne saa bu ñëwee fu ne la jullit di jóge ci àdduna bi ci biir réew mi ci Afrique ñu daje xamante di fi juddoo ca suñ borom waxoon na yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu te taaruf boobu nga xam ne mooy jur déggante moy jur gindikoo mooy jur dimbalante kon mën nañ ne màggal wàll yu bari la am ci ay njariñ waaye bi ci gën bi nga xam ne moo laltaay yi ci des yëpp mooy ni nga xam ne ak jaamu yàlla la koo xam ne day defar xolum nit ki day gën a sellal bakkanum nit ki ndax lañ ci yiñ ci def yëpp yuy sellal bakkan la yuy sellal ruux la yuy gën a jox nit ki ay tuyaaba la kon wàllu diine googu nga xam ne moo tax màggal jóg mooy wàll gi ci gën a gi ci gën a fës kon nag bu ñëwee kenn ku nekk war naa bàyyi xel loolu bàyyi xel ne lépp lu ko nit kii mën a waajale la ca jiitu mooy pas-pas mooy yéene ndax innamal amalu binniyaati nit ki la mooy jëf la ko cay jariñ mooy lam ca yéene kon kuy màggal la war a jiitu mooy loola li sëriñ bi wax ci bi muy fàttali màggal gi képp ku fi ñëw sëriñ bee la fi war a indi yàlla la fi war a indi ku fi nekk it danga fee war a nekkal teg ci li sëriñ bi bëgg kon kuy màggal si it la nga war a jiital mooy xam ne ak jaamu yàlla ngay defi jaamu yàlla googu yéene moo koy lal bu boobaa nga boo ñëwee nag tënku ci li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg loolu mooy taxa jariñu waaye du daje boo xam ne dajeb lekk ak naan rek la du daje boo xam ne dajeb folklore la kon ku koy waajal la jiitu ca la nga koy waajale mooy yeesal sa pas-pas tuub dellu ci suñu boroom xam ne da ngay wuti te kuy wuti da ngay raxas sa ndab ngir boo demee loo ca def mu sell kon yàlla ñu ko yàlla fekkee fekkeloo ca defal ñu tawfiq ñu mën koo defee ni nga xam ne noonu la ko borom bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.